docteur euh, Fatma Guenoune maa ngi lay nuyu. maa ngi lay Fatma Guenoune nga jiite Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer nekk cancérologue alors lan mooy solos bi nga xam ni campagne octobre rose am na ko. waaw euh, octobre rose mooy euh, weer bi nga xam ne ni moom la ñuy jàkkleel cancer wu ci àddina bi yépp Sénégal commencé ko Euh, commencé ko 2010 donc euh, ñun euh, dañuy yeete ci cancer wu ween bi waxtaan ak askan yi waxtaan ak jigéen yi xamal leen lan mooy cancer wu ween naka lañuy def pour moytu cancer bi te naka la ñuy def wax leen lan mooy facteurs yi nga xam ne ni ñooy favoriser cancer wu ween ba pare octobre rose yamuñu ci rek ci cancer wu ween dañuy def cancer bu buntu biti ci njurukaay suñu génnee Dakar euh, ñu former sage-femme d'État yi nga xam ne ni mooy ñooy kër docteur yi nga xam ne ni fa lay jigéen ñi di dem suñu amee ay jaaxle donc loolu le mooy weer bi ñu jagleel euh, ki Euh, cancer yi donc euh, sensibilisation yi dinañu doxantu def ay doxantu yeete ci dëkk bi euh, yore suñu micro yooyu de pour xamal askan bi lan mooy jox cancer lan mooy naka la def ba bañ a am cancer donc du premier au quinze ñu ngi ci Dakar ak banlieue yi dina ñu dem ci ay centre de santé dépisté foofu de ñu def benn randonnée de bu mag Euh, le 15 euh, octobre pour doxantu yee askan bi ci gox-gox yi euh, après nag ñu doog dem ci décentralisation bi ren moom dañuy dellu ci kër diine yi lu mel ni Touba Tiwaawoon dinañ dem Thiès dinañ dem Mexe ba pare dinañu terminer Euh, campagne bi par Kédougou loolu suñu partenaire Dubai Pongwood moo ñu ko euh, financé pour ñu mun ko def dérouler suñu activité kon kon euh, docteur am ngeen ay partenaires financier ci octobre rose bi ñu leen jàppale surtout ci côté xaalis. benn benn partenaire bi la ñu am depuis 2015 ñu ngi koy gërëm sant parce que chaque fois moom dafay ñëw waxtaan ak ñun. ñu dérouler suñu programme wax ko budget bu mu financé am nañu beneen partenaire BOA moom euh, dina am benn consultation bu muy def mais maa ngi yëpp euh, au yi parce que euh, société bu nekk ci sa responsabilité sociétale d'entreprise war nga mun a ci gox bi nga nekk permettre jigéen ñi fa dëkk ñu nga dépister leen donc loolu tamit pour gën a delloo njukkal askan bi ci ñi ngeen ñoom ni ñuy amee ci askan bi donc euh, loolu mooy euh, te mun nañ ko euh, am nañu programme yooyu day mais ñun bës bu nekk mun nañu organiser manifestation bu plus de trois cents personnes parce que am nañu docteurs yi nga xam ne ne ñoo ñuy gunge donc képp ku dégg sa message bi te war a bëgg financer benn dépistage mun nga ñëw euh, jàppale ñun ñu ñu dépister euh, plus de femmes parce que dañu am objectif bu euh, fukki junni jigéen ñu seet ba pare maye ñaari junni bon subventionné te ci biir consultation yi képp ku ñu gis sikki sàkk ci sa ween wala ci sa buntu buntu ci njurukaay dinañ la bunge ci sa faj déjà mammographie bi nga xam ne ne suñu gisee ci yow benn donj dañ la koy may te doo fay dërëm donc te loolu am na njëkk parce que mammographie bi euh, mi ngi ci soixante mille ci euh, radiologue privé yi euh, donc ci quarante mille ci public yi mais octobre rose mooy weer bi nga xam ne ne radiologue privé yi dañ ko wàññi defal ñu ko trente mille ñun trente mille francs yooyu ne ñun ñooy uti mille francs bi ci topp mooy ñetti junni yi jigéen bu bëgg dépister am à partir de ans soo ñëwee Disca da ngay jël bon bi nga dem ci benn rajo partenaire nga fay foofu quinze mille francs kenn fu fay dërëm ñun après campagne bi la ñuy li ñuy fay ci rajo partenaire yi Euh, euh ban appel euh, ban kàddu ngay lancé jigéen ñi surtout euh, par rapport ak campagne rose bi man eh, dama ne fee maa ngi eh, ñaan sama mbokku jigéen yépp képp ku dégg ne sa gox am na dépistage nga dem fa ñu seet la parce que eh, cancer wu ween soo ko yaree ci yow dafay law te su lawee dafay laal yeneen organe loolu moo tax faju cancer di metti teel ko gis teel a faju te rajo ween boobu may wax dina gis tumeur bi nga xam ne ne inférieur à un centimètre te suñ ko gisee du ñu sax dagg sa ween te chimiothérapie boobu day métti sonal nit ñi euh, yenn saa yi sax doo ko def donc dañuy tonni fi tumeur bi nekk ñu complété ko par radiothérapie donc euh, maa ngi ñaan jigéen yépp ñu saytu te ba pare euh, facteur favorisant yi fokk ñu xam ko mooy lekkin bu sell bi Euh, Sénégal lekkin bi dafa soppeeku parce que ci biir lekkin bi ci toggin ñam yi euh, dañ ciy def lu ne war nañu delloo ci suñu xel def li maam yi daan def toggin bu sell lekkin bu sell lekk fruits et légumes parce que suñu nee lekkal légume lekkal fruit ñi ci dañuy xaalaat dañuy war a lekk fruit bu jógee bitim réew te lekk fruit bi nga xam ne ne euh, bay nañ ko sa dëkk te amul engrais chimique amul pesticide loolu daf lay aar ba pare ñoom ñu wàññi yàpp bu xonq bi wàññi graisse bi euh, yàpp bu xonq benn yoon lañ ci war a lekk ba suuf ci semaine bi euh, donc am nañ fi yeneen aliment yu ñu war a privilégié war nañ ko mun a def ba pare jigéen yi ñu bañ a cigarette bañ naan sàngara loolu dafa am solo cancer yu ween nag yàq na jigéen ñi nga xam ne ne dañu yéex am doom mooy ne xaar ba fanweeri at ak juróom Euh, après fanweeri at ak juróom nga doog euh, am doom loolu de cancer bi daf leen di yëpp bañ a nàmpal tamit parce que jigéen bu am doom war nga mun a nàmpal sa ween ne serait-ce que six mois juróom-benn weer nga nàmpal ko l'islam mi ngi wax na ne jigéen dafa war a nàmpal ñaari at donc war nañu delloo xel ci lépp li ñu diine bi sant pour te loolu yëpp ay bénéfice la ci population bi. Euh, docteur lan moo waral euh, traitement wu cancer wu euh, sein cancer daal di cher lan moo waral loolu exactement. xam nga loolu di ko waral. Sénégal defarul garab. Sénégal defarul appareil. donc garab yi bitim réew lay jóge. appareil yi nga xam ne ne mooy def diagnostic bi mooy def traitement bi lu ci mel ni appareil radiothérapie mi ngi ci trois milliards. benn at ak lu topp donc euh, loolu moo tax yooyu yëpp am njëg li nga xam ne ne Sénégal am na ko macha allah mooy docteur yi nga xam ne ne formé nañ leen fii te formé euh, formé nañ leen formé bu baax a baax a baax te mën nañu opérer te yooyu ba tey dafa am njëg donc euh, ñu ngi ñaan gouvernement bi état du Sénégal mu bàyyi xel ci fajum cancer parce que loolu le war nañu mun a am gratuité mooy ku am cancer nga mun a faju te doo fay dërëm loolu le war na mun a nekk ci Sénégal bien que nag euh, maa ngi gërëm nag état du Sénégal parce que ñun bi ñuy tàmbali euh, mënoon nañu wax ne ne li ñuy li tubaab di wax terrain vierge lañ fi fekk dara amu fi woon benn cobaltothérapie moo fi amoon chimiothérapie bi ko amul woon juróom-benni million doo faju donc ñu dem ba deux mille dix-huit ñu permettre gratuité bi dugal ko deux mille dix neuf nga xam ne ne cette chimiothérapie qui coûtait aux alentours de trois millions euh, jigéen bu am cancer da ngay faju te doo fay dërëm donc loolu yëpp ci ay jéego yu état bi def ah, ñu ngi koy ñu leen di sant nag mais plaidoyer du doy parce que euh, ñàkk bi dafa bari ci Sénégal euh, ñu ñàkk moo ëpp ñi am donc ñu ngi ñaan yàlla ñu bàyyi xel ci loolu la ñaan état bi gouvernement bi bàyyi xel ci ñi néew doole te li may ñaan tamit euh, te foog naa ne bokk na ci mébét bi te ñoom ñu ngi ciy xalaat mooy ñu am ay pôle de euh, traitement du cancer au Sénégal loolu suñ ko defee ñëpp du ñu ñëw ba dakaar pour faju loolu yaakaar na ne ñu ngi ci te ñu ngi ciy def ay jéego te suñu yàlla jàppalee Euh, dina mës a sotti incha allahu rabbi. Mhm. Euh, docteur euh, gratuité chimio bi fuñ fuñ si toll ba ba fi ñu toll nii gratuit wala. exactement c' est gratuit il quinze produits de la chimiothérapie conventionnelle ñoom ñoo gratuit am na quelques thérapies ciblées yu ci dugg mais yeneen thérapies ciblées yi dugg ci donc te yooyu de dafa njëkk dafa am njëkk. parce que benn produit bi nga xam ne ni benn cure un million xam nga euh, euh, euh, néew doole mënu ko donc état bi moo ci dugal loxoom pour subventionner ko ba njëg bi wàññeeku ci malade yi LISCA nag moom malade yi la fi nekkal ñun saa yi ñu defee téléthon pour dimbali malade yi nga xam ne ne dañu néew doole am cancer te mënuñu faju Euh, d'accord léegi euh, tey jii euh, docteur ma gënoon ban conseil ngay joxe pour mën a wottu bu baax a baax li nga xam ni mooy cancer surtout cancer du sein. man li may wax ñaan sama mbokku jigéen ñi ñi nga xam ne ne ñu ngi nekk di gis règle soo gisee règle ba sangu set nga làmbatu sa ween. Euh, weer bu nekk ñu dañ leen di jàngal ci caravane de sensibilisation dañ leen di jàngal naka la ñuy làmbatu ween parce que auto examen des seins boobu la c'est important euh, ñu xam naka lañ koy làmbatoo parce que ñi ko mokkal léegi gis nañu ci biir hôpitaux yi ay tumeur yu tuuti te jigéen ñoo ko làmbatu seen ween pour euh, gis ko ñu ñëw ñu topp leen donc auto examen des seins boobu c'est important consultation médicale ne serait-ce qu'une fois par jigéen bu nekk war na mun a dem kër docteur ñu euh, seet la ñu euh, la war a seetee xool ndax amul sikk sàkk ci sa yaram muy ci cancer wu cancer wu buntu euh, buntu ci njurukaay loolu de donj boobu ñuy làmb ci ween te donj yëpp du cancer loolu moo tax suñu gisee donj ñu gunge la ci diagnostic parce que dinañ def cytoponction dinañ def biopsie pour xool ndax euh, lu ñu gis cancer la wala du cancer parce que fajum cancer ak euh, tumeur bénigne bokkul ni ñu koy defee parce que ku am tumeur bénigne doo def chimiothérapie doo def radiothérapie dañ lay defal opération alors que ku am cancer dinañ la defal chimiothérapie pour wàññi lawtaanu feebar bi wàññi maasu euh, bi taay bi ba pare Euh, ñu de opéré la defal la radiothérapie complémentaire mooy ne dañuy rey fa tumeur ba nekkoon ñu rey ko pour mu bañ a law ci yeneen organe donc loolu moo tax euh, fajum cancer yàgg te metti ci malade bi donc euh, chimiothérapie boobu malade bi di ñu ñu lay piqûre dafay dafay yëngal cellule bees yi sax yi nga xam ne ne feebaruñu sàkkatumaak cellule bu moo tax maladie yi di ci sonn di ñàkk deret donc au passage maa ngi ñaan askan bi euh, ñuy def ay don de sang parce que malaat yi dañuy soxla deret parce que suñu nekkee ci chimiothérapie dañuy soxla deret suñu ñàkkee deret te ku am euh, ñu dëkk ci ga euh, gox yi nag te am ku feebar parce que ku dëkk ci benn quartier nga yëg ne ne am nga malaat bu nekk ci sa gox ah war nga ko mun a jàppale yàqal ko mu lekk parce que ku ba pare gunge ko parce que kenn warul wéet ak feebaru cancer ci merci beaucoup docteur Fatma Guenoune ñu ngi lay remercier bu baax a baax ok au revoir voilà ñuy fàttali ni docteur euh, Fatma Guenoune mooy présidente de la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer nekk cancérologue ñu koy remercier bu baax a baax